auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa ma tawfiqi illa billah jërëjëfe borom Touba jërë am maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Mouride la lumière li barakati Cheikh Ibrahima Fall Lamp Mouride mbokki jullit yi mbokki taalibé yi ñëw la nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax te ñu ngi fii ci site bi nga xamante ni mooy li xew TV di ci ànd ak mbokki taalibé yi di gu leen dëgmal li nga xamante ni mooy li nga xamante ni moom lañ taxawal muy liggéey bu réy bi nga xamante ni mooy barabu maam Ahmadou Rokhaya Fall boobu ngeen di séen mi nga xamante ba nga fële ca njare ca deween ba nga naan kër Samba ci ndigalu Cheikh Mamadou Abdoulaye Fall la ci la ko mbokki jullit yi mbokki taalibé yi taxawale jaayante ko ba mu taxaw boo xoolee coupe bi nga xamante ni moom la barab bi mel mook barab Maam Cheikh Ibrahima Fall benn la bato bu këpp la boo ko xoolee xoolaat ko di nga xam ni carrément bato buñ këpp la mu xamal ne ni Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mooy ki nga xamante ni ëllëg yomar xiyaam moo jàll jaam ñi soo xoolee ci bato boobu loolu lay firndéer mooy barabam bi nga xamante ni mooy waajuram Maam Cheikh Ibrahima Fall di Maam Ahmadou Rokhaya Fall moo nekk ci barab boobu noonu ngeen di seen di sàkku ci mbokki bi yëpp rek eh, ñu dugal ko ci eh, li nga xamante mooy internet bi nga xamante ni mooy li xew TV ñu am liggéey bu rafet boo xamante ñoom bàyyiwun dara këru diine yi ak këru lislaam yi ak lépp li nga xamante ni liggéey bi nga xamante ni aw na ci yoonu wu jub ak teraanga ji nga xamante ni moom la ñuy defal suñu borom ci liggéey bi nga xam mooy néegu yàlla bi saa su nekk rek ñoo ngi ci bay seen waar bu baax a baax a baax mooy li xew TV kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi loolu la leen doon dëgmal ci barab bi nga xamante mooy barab moom Ahmadou Rokhaya Fall mi nga xam moo meññ maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mooy waajuru góoru maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina muy maam Ahmadou Rokhaya Fall barabam moo nekk noonu moom la doon leen dëgmal fii ci lu xew TV asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu.